tàllinkoor clip ba nañu ko réaliser ba tey gars yi ña nga coy wax ci réseau social bi Aïda Samb gars yaa ngi koy yekk musiba ak mbelengaan ñu ngi naan ko namu ñoo doon dàllinkoor bu fekkee dàllinkoor nii la nekkee dàllinkoor ñaaw na ci deru Sénégal dàllinkoor fii Sénégal niñ koy nekkee baaxul jigéen ñi dañ leen jàppe ay fabayrekaay ci biir seen néegu sëy dañ leen di def lu nekk ci biir néegu sëy yi dañ leen ci yekk musiba ak mbelengaan ñoom la ñu jàppe seen i mindaan ñooy yenu liggéey bi ñoo koy ngardaajoo ñoo koy engagé ba noppi itam lépp lu naqari ñoom la ñu koy tekk ñoom daal amuñu benn vie boo xam koy dund ci seen biir néegu sëy lu dul togg ka yekk ka fóota ka balee ka passé ba duñu nduróoti ay nit su fekkee loolee mooy dàllinkoor fii ci Sénégal ñu baree bari jàpp nañu ne dàllinkoor yàlla bu ñu ko doon am na ñoo xam ne ñu ngi naan dëgg la ab sëy boo ci nekkee faaw da ngay muñ ab sëy boo ci nekkee faaw da ngay engagé lu baree bari ci ay naqar ak ci ay métit faaw nga muñ loo sa borom di sëy te yàlla kottu tax su boobaa nag bis ci kanam dana ñëw nga daal di am li nga xam ne moom moo di say résultat te résultat yooyu le ndam topp ak lu ci a xew itam kili bu ay décembre boobule gaa yaa ngi woy di ko ci yekk musiba ak mbelengaan façon xeetu bu nekk ñu ngi ko yëkkati di ko teg ci deru ay décembre bi naan ko cuune dëggantaan nga ni nga woyee way wile ak ni nga defee clip bi c'est diamétralement opposé jàngi waatal way jàngi waatal clip ni nga ko defee ak ñi ko réalisé ñoom ñëpp bokk yam kenn amu ci kenn defu ci jëf joo xam ne mooy li ko war ki ñu jëf jëf ji warul moo di Abdoulaye Diaw sportif bi nga xam ne journaliste xam ci Sénégal doyen Abdoulaye Diaw ca rajo Futurs Médias dañu ko daal di annoncé ne dafa faatu doyen Abdoulaye Diaw ci di woo suñu naataangoo yëpp fari ci ne moom la la Abdoulaye Diaw nee na man information bi yëg naa ko dañu ma ko envoyé yëgal ma ko waaye sama mbokk yëpp maa ngi dalal seen xel te di leen xamal ni leen Abdoulaye Diaw bi ñuy wax naan dafa faatu man ak moom ñoo bokk benn tur waaye tamit nag ab ancien la kon nag man ak moom daanaka dañu bokk ab jëmukaay waaye waaye bokkul ak man ba léegi man Abdoulaye Diaw maa ngi dund macha allah amut lenn loo xam ne dal na ma baabu tàbbi ci sama kaw kookee Abdoulaye Diaw la tudd naam waaye bokkul ak Abdoulaye jaw mi maa ngi ciy dalal bépp xarit bépp soppe képp koo xam ne sama mbokku nga ak fu waay mën a nekk itam dalal leen seen xel te man ta xam ne man Abdoulaye Diaw maa ngi dund maa ngi ñaan sama borom mu gën ma yàggal te gën maa wéral yàggal mbooleem julee te Abdoulaye jaw wet dina li nga xam ne moom la ñu teg ci deram bi naan dafa faa Macky Sall mi génn ci réew mi ne duma laaj troisième candidature Karim sobte ba ca sébi xutaan ca nungu sin la a ci a xew itam a a des mooy peuple Sénégal bi laay waxal nañu gën a continuer seenu xeex nañu gën a ngardaajoo seenum réew nañu gën a fexe fugulu ci réew mi ak koy teg ci ay yoxoom ngir réew mi mën a jaar ci yoon réew mi itam mën a dund ci jàmm ab sénésam mën a am jàmm ak salaam li nga xam ne moom moo sénat fépp ki ko génne mooy Sabel Dieng kat bu mag bi la rakk ci Momo Dieng moom mi di Sabel Dieng génne na clip ba daal di koy tuddee fatt naa fépp woyu mbëggeel la ma nga cay wax ak ki nga xam ne moo di borom këram di ko xamal ni ko nag ak loo mën a wuti ci mbedd mi ak jigéen ñi ñu la topp topp ak lu ñu la sañaxal sañaxal itam su guddi jotee ci sama ginnaaw gi ngay jàll su guddi jotee ci sama néeg bi ngay fanaan ak nu mu guddi guddi dinaa la xaar ak foo mën a dem itam dinaa toog di la xaar itam fatt naa fépp amul kenn koo xam ne dina mën a ñëw fees sama place amul kenn koo xam ne ci jigéen ñi mën naa guux sam xel génn sa jë sama jëmm ji ci sa xol bi le loolee mënatu la nekk moom Sabel Dieng ci biir waayam boobule message boobee la ciy lancé di xamal jigéen ñi ne leen ku ci xasa am sa borom kër na nga ko kepp fi ko war a kepp na nga fatt ku jugee feneen nar koo fattar ñi mu mën loolee mën ko daal di tëb ba faaw Pawlish ndax dafa am complexe ay waajuram ba ba muy takk soxna dafa uti ji yeneen i waajur ku ci mel ni biisu ngeen la jox li nga xam ne moo di may gu njëkkam ne ko yóbbul ma ko Alsaan Mbaye moo fa nekkoon nekkoon fa aw baayam Pawlish Mbaye romb fi ay waajuram ñi nga xam ne ñoo dëkk micro ab baay ci daal di def ay révélation yekk xeetu musiba ak mbelengaan bu mu ci mën a doon kii di seen doom ji di Pawlish Mbaye ne joxuñu benn cër faale wuñu toppatoo wuñu kippe wuñu ndaxte nekk na nit koo xam ne lijjante wuñu daf ñoo tuutal daf ñoo ñàkkal xorom ñun ay waajuram joxuñu benn cër te itam dundaluñu dundaluñu ci benn anam yëkkatiwul benn dërëm jox ñu ba mu amee ñat dërëmam moom ci la dal di béro ci la dal di yoxosu nekk ci fi boppam ut yeneen i waajur ut yeneen i nit loolee nag ñi ngi ko ci xaar waaye nag na leer naa ñi ne Pawlish Mbaye ñun ay waajuram teguñu fenn jëf am bari ñu ciy samp ay laaj naan Pawlish Mbaye mbaadu dafa jékki-jékki daal di xeeb ay wayjuram am complexe bu ko dugg mu daal di wuti ji weneen wayjur yoo xam ne ñoom lay jëflanteel Papichou di bongoman bi nga xam ne ñëpp ko xam ci Sénégal Papichou bongoman bi nga xam ne daan na fi ànd ak Nabou Dash moom mi di Papichou ñu ngi koy tuumaal ci réseau social bi naan dafa lekk ay tontinu jàmbur ne ko furaax daw ak moom ba pare toog fa daal di ne waa Sénégal bàyyi bàyyi Papichou ñi nga xam ne ñoom la yoreel ay natam kenn ki moom dafa daal di génn def ab live ci TikTokam di xamal Sénégal ni leen Papichou képp ku mu wax ne la man maa ko war a teggil na te ngir mu fay ci ay borom waxul dëgg dafay kàcc kàcc yu tooy xepp papisu moom ci boppam yoral na ma ñaari million ak lu topp ci ay natt yoo xam ne su ma leen ko limalee benn bu ci nekk papisu nattu ko kon nag papisu na bàyyi kàcc yi mu nekkee yéen ñi nga xam ne daf leen yónnee sama vocal man mi nga xam ne man lay waxal naan maa ko war a jox ay natt loole dara du ci dëgg bàyyi leen li ngeen di def bàyyi leen di gëm waxi ko xam ne dafa sàcc alali jàmbur yi daw ak moom ba toog lànk ne dootul dellu su fii ci Sénégal Wally Ballago Seck mu ngi yëngal Sénégal moom la joto def di wan gaay ni leen bokkuma ak yéen kilibam boobule xale bu jigéen ba mu ci àndal xale bu jigéen bu sexy la te rafet ba noppi itam ñoom ñaar ñu ngi ca am benn àndandoo goo xam ne ñu ngi koy àndandoo ci kilib ba ñu bare bare di leen xool di ci gis naan leen dafa romantique Wally Ballago Seck parole ya dafa romantique waaye itam kilib ba dafa àndandoog moom romantique site yi tàllal paw site internet yi yëkkati seeni micro jébbal ko bàyyi Pawlish Mbaye mu wax ñoom ñëpp ay nooxoor dëggantaan lañu du samay kàddu Ahmed Cissé moo waxee ni ni moom Cheikh Ahmed xam ne moom la site internet yi def bàyyi ba Pawlish Mbaye takk jabar ñu daal di dem jël seeni micro dëkk ko wëy juróom mu daal ko yekk musiba ak mbelengaan nee na loolee internet yi seenub der mustarafet te tey gën naa yàqu ndaxte Pawlish Mbaye seenub client la ndax saa nekk dañuy dem ci moom di ko jël ay interview mu leen di waxal seen site a internet amul fay fii ci Sénégal site internet amul publicité site internet li leen di dimbali mooy sama classe gi nga fekkentene nak dañuy dem ba di ñu yàq boobaa nag suñ ëllëgatee mba di ngeen ñu talal micro ñu mëna wax site internet yi def yoy le yëfi nooxu dëggantaan la ñu def waron nañu mëna sàngu sutura Pawlish may baña dem ci way juram dëkk ko micro diko ko yàq musiba ak mbelenga lolé rafet lu moko tey tamen nak amul ben yoon bo xamné dina dinaa ko rafetlu mbaa mu neex ma donte may Mbaye ñu dara man ak mom du sama xarit ndax daf ma wor woratima comme nak daf ma wor woratima amul len lo xamné mëna ko ci jàppal tànk waye li deug moy deug man Ahmed ci dëgg dama koy wax te fu ma fekk itam dama koy wax muy neex ak muy naqari rangu ma ngay toje ci réew mi rangu mi nga xam ne ñëpp ko xam ci Sénégal publié ti na ay image yoo xam ne boo demee ci kontam ba ñu ngi koy commentaire naan rangu ñëwati na rangu génnati na image yoo xam ne daanaka li ëpp ci ay cëram ma nga ne fàng dàng ci biti ñi nga xam ne ñoo fare ci commentaire yi am na ñoo xam ne ñu ngi naan rangu min nañu lii ci moom rangu nekkatul surprise ci Sénégal saa defee lu mel ni nañu xaar mu def bis lu raw lu mel nii